tey jii nag waxtaan bi li ko waral mooy dafa am feebar ju dugg ci àdduna bi commencé ëppi loxo loolu la yàlla dogal ci jamono jii ñu toll muy sunu wareef ñépp réew yépp ku ci nekk nga jël ay motukaay yoo xamante ni dina tax feebar bi bañ a law di lor askan wi fi ñuy wax ak yéen ni feebar bi téeméeri réew am nañ fini wax ni tay di lolou motax gouvernement wu Arabie Saoudite Yalla def li ñu gën fonk ci islam nek fa ñom ñu am responsabilité bu reuy ci aduna bi jël ay décisions fan yi passé notamment le 27 février yónnee won ñi fi yónnee won nañu ben bataaxal dakal joxe visa mo xam visa visite la moo xam visa umra la ambassadeur bi dina ci ñëwaat léegi loolu di ci ñun xew-xew bu rëy ndax Sénégal aada nañu bu koor gi jegee ñu organiser wu di dem umra en masse ci gàttal ba fi ñuy wax ak yéen nii gouvernement Arabie Saoudite jàpp na ni ren du mën a jox kenn visa kon ñun ñi nga xam ni yéen ñi nga xam da ngeen di liggéey ci loolu ñu ngi leen di ñaan aussi ngeen jël seen matukaay bañ ko organiser pour ñu bañ coow lo xam ni mën am ci sunu biir réew ndax korgi koor gi xat na te jàngat bi ñu am ci feebar bi jàpp nañ ni lépp du mën a jeex ni ñu ko bëggee fii weer ba ñaari weer te dina fekk ñu dugg ci euh, ci ci ci ñu nekk ci koor gi kon loolu gouvernement du Sénégal waroon nañ leen ko euh, yégal pour ngeen xam ko yéen ñëpp ndax président Macky Sall li ko yitteel mooy transparence lépp loo xam ni ñëw na ci réew mi wala am nañ ko ci réew mi nañ ko wax ak askan wi nu mu gën a leere pour ñu xam ndax li ko yitteel rek mooy na askan wi xam lii dëgg ci li muy def fan yi passé di fukki fan ak benn ci weer bi ñu nekk muy mois de mars bi

mais li ñu wax moom mooy engagement boo xam ne ñu koy jël surtout robotina ci engagement boo xam ni day jur ay dépenses ci wàllu xaalis nañ ko arrêté moo xam jël hôtel la moo xam louer ay transport la moo xam louer ay dëkkuwaay la loolu yëpp ambassade ab Arabie Saoudite dakkal na ko kon nit ñun ci biir Sénégal en toute responsabilité jox nañu ndigal délégation générale au pèlerinage pour wax ko bu mu enrôlé kenn bu mu jël kenn dinañu continuer nag di def seen organisation ni ñu ko doon defee ci seen biir ñu ngi ñaan yàlla feebar bi dellu ginnaaw mais ba fi fi may wax ak yéen nii mooy amatuñu sañ-sañ enrôler kenn amatuñu sañ-sañ wala yóbbu kenn ñuy ñaan aussi voyagistes yi ñu nekk dans la même logique bañ a jël alalu kenn bañ a organiser de manière pratique benn opération boo xam ni day dem ci pèlerinage bi xëy na fi ak ay weer benn weer ba ñaari weer ñu ngi ñaan yàlla yëf yi leer ba ñoom ñu teggi mesure bi duñ ko teggiwulee ñu jàpp ni kon ren dina jafe ñu def ko